daara yooyee sëñ Thierno Diouf Lambaye moom tabax nee na bi muy ñëw nag sëñ laay nee na daa dogo woon ni nee na yaari yi rek ci la dogu nee mu fekk fi jëmbi si yëpp kay ji ak ñàkk ko fay fekk ngir li nga xam ne moom laa bëgg tam tax maa jóg nee na bu ma ko fekkutoon it sunu borom seere na ni. moo gën di dëgg ma fekkul. moo gën di dëgg sax ma fekkul. kon kon kon njàmbaas la aw njàmbaas la. kon aw njàmbaas la. gis ma ko gis. nee na gis gi ma ko gis. kon nangu naa kon nangu naa ni. Serigne Touba nangu na ko. Serigne Touba nangu na ko. dëkk bii. dafa am. dafa am. Serigne Touba kum yebal ci Serigne Fallou. Serigne Touba daa am kum yebal ci Serigne Fallou. fekk kooku ñëw ci Serigne Touba. fekk kooku ñëw ci Serigne Touba. ne ko dama bëgg nga dimbali ma. xam naa da koo jox bataaxel. mu ne ko demal ci fadlullahi. sëñ Tuubaa ne ko demal ci fadlullahi.